ba tey rek di leen dalalaat tey jii ci Seneinfo ñu ànd ci ñu def spécial 8 euh, mars ñu ànd ci ak suñu invité yu yanj yi di waa femme battante de Yoff APEX ñu ànd ci ak ñoom tey jilee xam naa dama leen di waa dama leen di bàyyi ñu nuyoo rek ñu daal di jàll ci suñu spécial 8 mars damay bàyyi seen présidente mu daal di présenté wu jox leen après ñoom ñu daal di présenté wu waaw Astel ñu ngi lay fay man la madame Dramé ne Ramatoulaye Thiongane mhm. nekk présidente GIE FEBIA mhm. mooy les femme battantes de Yoff APEXI 2 jërëjëf madame Dramé madame Diop ñu bàyyi la nga nuyoo mhm. man la secrétaire général groupe FEBIA ñu leen di taaxirlu di leen sant. Mhm. di leen gërëm ci déplacement bi ngeen def lii. macha mhm. allah di leen bu baax a baax ci teewlu bi madame Diallo ñu bàyyi. Mhm. asalaamaaleykum Astel. ñu lay sant man la madame Diallo Koné Seye. Euh, trésorier groupe FEBIA Yoff APEX 2. jërëjëf madame kontaan ci invitation bi. jërëjëf maa leen gën a kontaan bu baax ci teewlu bi madam lay Ndoye ñu bàyyi la nga nuyoo. waaw Astel maa ngi lay nuyoo bu baax. di la ziar. di leen ndokkeel yow tamit si su jigéen ñi ñoo bokk 8 mars mhm. bi. di ñaan yàlla defal ñu jàmm ñu mottali si commencé si bisimilah rahmaani rahiim àggale si alhamdulilah rabbil alamin dañuy ñaan mhm. yàlla at mu ne bu ñëw rek dàq morooma macha allah. <laughs> jërëjëf merci beaucoup. <laughs> di leen jaajëfal bu baax a baax si teewaay bi ngeen fii teew. ñoom nag waa groupe FEBIA tey nag seen euh, thème jour journée bi mooy le rôle de la femme dans la famille. tey nag euh, madame euh, Ramatoulaye Thiongane bëggoon naa ñu waxtaan ci seen thème boobu nga wax ñu lan moo war a nekk place yu jigéen ci biir famille. waaw euh, Astel ku nekk xam na ne jigéen. Mhm. moom mooy àdduna. Mhm. moom mooy kër. Mhm. ku ne jigéen ne kër. ndax jigéen bu baaxul dara du baax. dëgg la waaw looloo tax ñu choisir thème bi. ne le rôle de la femme dans la dans la famille. ndax ci biir kër jigéen moom mooy la femme elle est éducatrice. et les médecins mm-hmm. infirmières avocates mm-hmm. juges mm-hmm. ay fonctions yu bëree bëri bëri bëri lay occuper ci biir famille bi looloo tax ñu choisir thème bi pour wane ne jigéen même bu fekkee ne tey gàdduwu saagam dem di xëy li muy def ci biir këram moo gën fuuf te moo ëpp solo fuuf li nga xam ne sax mu ngi koy apporter économiquement ci biir ci biir ci biir ci biir réew mi ci biir société bi ndax tey boo xoolee sa biir sa ñaari doom buñ ñu xuloowee yow yaa jugé sa ñaari doom bu ñu bu bu ñu jotee. Mm-hmm. des fois nga jouer le role d' avocate. Mm-hmm. des fois aussi bu fekkee ne kenn ci ñoom feebar na nga def les soins les pansements yooyu yëpp looloo tax ñu ne ñu choisir thème bi. Mm-hmm. pour développer ko pour wane ne jigéen même bu fekkee ne xëywoo bul xeeb sa bopp. ndax li ngay jouer ci biir société bi macha allah ëpp na njortu. Euh, xaw ma nan laa ko mën a mën a matérialiser mais lu ama ama am solo yaa ngi ko joué même bu fekkee ne xëywoo dëgg la place de la femme dans la nekk na lu am solo tamit nekk thème bu am solo bi ngeen xamante ne nii tey yéen a ko tànn si seen euh, bés bi si suñu bës bi sax laay wax ndax si laa bokk mm-hmm. si loolu tamit di leen souhaiter encore bonne fête à vous et à toutes les femmes mm-hmm. ba si internautes yi nga xamante ni ñoo ñuy seetaan à travers Seneinfo International tamit ma di leen wax bonne fête mm-hmm. xam naa dañuy bàyyi madame euh, Sarr Diop euh, Tabara moom tamit mu wax ñu nan la gisee nan lay gisee boobu le yëf nga xamante ne nii jigéen lan mooy place am mu si biir famille bi mu am lu mu ñu si indi rek madame ko salaamaaleykum amee internet maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm. Mhm. ñun waa groupe FEBIA. Mhm. femme batte anti-APEXI. su ma mhm. juumul sama présidente bu ñaaw bi noonu la. ñun waa jigéenu APEXI ñun wax dëgg yàlla 8 mars bi dañ koo sargal benn def ko benn fan rek pour jigéen ñi. Mhm. waaye ñun chaque jour 8 mars la war a doon ci ñun. dëgg la ndax jigéen ay yaay. Mhm. jigéen mooy ne ci kër. Mhm. jigéen ay xëy toppatoo borom këram. jigéen ay xëy sangu doomam. yóbbu école bu feebaree mu dem hôpital. ñuy bu juróom-ñeenti weer. kon 8 euh, mars bii nii ñun li ngeen ñu defal nii déplacé wu ñëw uniquement. pour euh, defal ñu interview bi ñun ñu leen ciy sant di leen ci gërëm. Mm-hmm. di ñaan seen site internet bi yàlla nekk dem ba nekk télé. Mm-hmm. ci barke Mouhamad. Mm-hmm. yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def yàlla nañ leen woowaat ci yeneen circonstances. ndax am nañ yeneen projet. am nañ yeneen yéene am nañ yeneen xalaat. yu ñu tëral. bés buñ ci yeggee ak jàmm. dinañu leen woo ngeen ñëw. di sant suñu président di sant suñu secrétaire général madame Diop. Kogne Seye madame Diallo. trésorier ak suñu mag bi Fatou Diop laaj. wa dëgg la jërëjëf xam naa balaa ñuy dugg ci waxtaan bi di waral boobu lee taxawaayu bi lee GIE xam naa loolu yëpp balaa ñu ciy dugg dama leen di bàyyi ku nekk joxe sa xalaat ci boobu lee tam ngeen tànn ba pare. waaw astal mooy li ñu ko sama kii waxee rek sama àndandoo yi ci projet ci journée bi. Mhm. Euh, jigéen moom jigéen nee naa c'est tout jigéen mooy mooy jigéen mooy àdduna. dëgg la. jigéen jigéen rërëm dafa dafa dafa dafa dafa weesu xalaatu doomu aadama ndax jigéen bu léppam bu lépp baaxee bu bu jigéen baaxee rek mooy àdduna lépp baax na. dëgg la jigéen mooy société bi. Mhm. mooy mbedd bi. Mhm. mooy kër yi mooy lépp. Mhm. kon donc man sama point de vue mooy man maa ngi invité waat suñu sœurs yi. nekk ci mbedd bi. ñu gën a rafetalaat suñu doxalin. dëgg parce que tey suba suñu raq yi suñu doom yi suba ñun ñoo nekk yaay. te yaay drap bu weex la rek lu ko taasal dafa xaw a yomb. dëgg la te tey bëggoo ñu nga nekk sa yaay wala nga nekk euh, tey responsable. Mhm. ci àdduna fépp. ñuy mhm. génn sa ay vidéo yoo xamante ni. Mhm. bokkul daal ci loo xamante ni tey doo ko mën a. tey doo bëggoo tey. say doom gis ko. dëgg la loolu tamit am na rapport ak thème bi nga. ak thème bi ak thème boo xamante ne nii mondialement. moom la ñu exactement exactement Astel. parce que tey génne tey say awra ci mhm. réseaux sociaux yi génne ko si tele yi. Mhm. comme yi xew léegi man daal li ma li may li may invité samay sœur ak samay. Mhm. doom mooy nañu delloo suñu xel. ne d'ici dix ans ñun ñooy nekk yaay. dëgg la ñun ñooy fii ni war a nekk première daal ñun ñoo fi war a nekk ministre. Mhm. te tey jii mënoo nekk ministre. Mhm. ñu génnee la ci loo xamante ni neexul expliqué rafetul mm-hmm. yàlla nañu yàlla dooli sutura rek te ñu ye ñu yàgg a ay 8 mars yu baree bare amin amin yéen Astel amin wax ji am na solo torop sutura bi tamit si la bokk te li nga wax nii tamit mooy thème bi nga xamante ne nii mooy thème mondial bi mm-hmm. si loolu tamit am na solo torop ndaxte jigéen bu nekk danga war a xalaat ëllëg xalaat ne di nga doon fii ak 10 ans comme ni nga ko waxee di nga doon yaay nga war a am yeneen taxawaay ban bët lañ la war a xoolee si bile société loolu tamit jigéen bu nekk war na see bàyyi bu baax a baax xanaa damay jox ko sama euh, sama dame bi rek madame Laye Diop mu nuyoo ñu daal di waxtaan bi. waaw euh, Astel maa lay santaat bu baax di la gërëm bu mm-hmm. baax. Euh, di kontaan si ni ngeen ñu recevoir tey jii. les mm-hmm. femmes battantes FEBIADA APECSY. Mm-hmm. di gërëm madame Dramé Ramatoulaye Thiongane ak sama rakk yu ñaawul yi. madame Diop ak madame jàlloo ñun daal sunu GIE bi Astel dañuy ñaan yàlla rek yàlla defal ñu si jàmm defal ñu si ndam te musal ñu seytaane lafal ñu cat ndax ba ñu dalee ànd macha allah yàgg na ba ñu fonde suñu GIE. Mhm. di si leblante ay xaalis. Mhm. di liggéey ndax kenn ku nekk si ñun rek am na si lu muy yëngu. ñuy leblante ay xaalis mu néew mu bëri. Mhm. kon dañuy ñaan yàlla lii gën a law ba. Euh, képp koo xamante ne nekk nga première daa mu recevoir ñu. muy gën a law di law di law di law ba sa kanam a kanam macha allah. amiin amiin suñu jógee foofu nan nga war a lan nga mën a doon. waaw Astel taxawaayu jigéen tey si société bi mooy. daanaka ku ne xam na ne góor ñi bu ñu xëyee dañuy dem liggéeyi jigéen ñi nooy ne ci kër yi di téye xale yi ñooy togg di toppatoo borom kër yi di def lépp te mm-hmm. gannaaw lii tamit ñu ngi sant suñuy borom kër bu baax ndaxte ñoom tam buñ d'accord woon ci lii lii du mën a am ñu ngi sant tam suñuy borom kër bu baax a baax a baax macha allah mm-hmm. ndax tey ku mu doonoon su ñun rek rama tey boroom këram bu ko ne woon lii doo ko jiite wala ah taba tabara saar mm-hmm. ah këru euh, kooña kon lii yëpp du man a am mais dañuy sant tamit suñuy borom kër bu baax ndax dañ ne feccu liir mhm. bu neexee ndey baa jàpp sa mbagg ya mhm. du loolu olof wax mhm. loo tax nag balaa ñuy def da tamit dañuy sant suñuy borom kër bu baax mais jigéen dafa am solo lool si jamono juñ toll nii. Mhm. ñooy yar ñooy éduquer ñooy jubbanti ñooy lépp te ku ne xam ne jamono juñ toll nii. Mhm. lëj na lëj goo xamante ne foog ñuy topp tam si njaboot gi. Mhm. di xool di lijjanti. ba mu baax ndax lu sànq jigéen instant bii dafa yomb. muy man di keneen ak xale yi ndëgam mag sax moo rëccul maa sama xale yi. ñuy xool xale yi si école yi di surveiller fu ñuy dem di xool téléphone yooyu yëpp da siy am solo. waaw ndax jamono ji dafa doy trop macha allah. Laye Diop si loolu tamit am naa tamit euh, suñu présidente dangay jox micro bi rek mu waxtaanal ñu si boobulee taxawaayu FEBIA lan moo waral ngeen taxawal boobulee FEBIA ak yan mbëbët ngeen ci am. waa ASTEL euh, FEBIA moom euh, buñ ko taxawalee c'est mm. parce que dañoo constaté que ne. jigéen ñu bari bëgg nañu liggéey. Mhm. mais des fois fan la ñuy jëlee fonds bu ñu liggéeyee mooy seen problème. dëgg la léegi nag euh, entre amis on s'est concerté. Mhm. daal di ne pourquoi pas ñu jéem a xool. Mhm. nu ñuy boolee suñuy mën suñu suñu koom. woo suñuy xarit woo suñuy dëkkandoo woo ñëpp yaatal. Euh, tas ko ci biir quartier bi. Uh-huh. ba nga xam ne. képp koo xam ne bëgg nga liggéey mhm. wala am nga benn soxla boo xam ne taxaw na te munoo koo faj mhm. nga war a mën a am benn foo foo xam ne yow boo fa demee di nga mën a faj sa soxla ci biir sutura mhm. te ci nga bokk ndax tey jii nii buñ ne GIE bi ku nekk xam na ne ñun on a nos nekkul benn GIE boo xam ne dafa ñëw taxaw pour di xaar ndimbal ndax ndimbal aussi na ca fekk loxol ah, da ngeen am seen i dañoo créer wut suñu fonds propre nekkul ne dañuy toog di xaar nit ñëw mm-hmm. jox ñu noonu mm-hmm. mais nag ku ñëw fekk ñu ca dolli ñu dañuy jël mm-hmm. mais comment on a créé nos foofu propres mooy que ne dañu def pendant un an dañ doon cotiser cinq mille cinq mille comme genre natt waaw genre natt mais natt boo xam ne kenn ko teggi la d'accord ça léegi yow boo fekkee na nga da nga cotiser cinq mille pendant douze mois ça fait soixante mille soixante mille yooyu noonu doo ko teggi doo ko teggi doo ko keneen du ko teggi. 60 millions yi dañuy xool kenn koo xam ne tey jii am na benn projet ñu jël ko financé ko. financé ko financé ko léegi moom bu demee daal di euh, euh, defar kii réaliser ay euh, euh, projet am mhm. moom it di fay nànk-nànk mhm. remboursé moom bu fayee ñu euh, par par groupe la ñuy doon mhm. léegi bu ñu fayee ñu le mois bu ñu fayee tey le quinze le seize ñu jëlaat xaalis bi financé waat ko ñeneen noonu daal la ñuy def ñu am suñu propre fonds de est-ce que ba ngeen ko commencé def ba tey gis ngeen si ay résultat oui wax dëgg yàlla gis nañ ci ay résultats te aussi ñi nga xam ne ñoom la ñu àndal dafa bëri ñoo xam ne ñooñu mag xam nga ñoo ñu ëpp xel ëpp ñu expérience depuis depuis kañ ngeen ko taxawal. bi ñu ko créé léegi ça fait un mois et demi ah. un mois et demi autant non dama juum d' accord waaw dama un an <laughs> waaw et demi. Mhm. waaw lañ ko bi ko taxawal léegi léegi si la mhm. toll. mais ñu ngi sant yàlla. Mhm. ndax li nga xam ne moom moo ci nekkoon suñu objectif am na loo xam ne atteindre nañ ko. mais nag ba léegi nii ci jàng dox lañ toll. xam nga mokkala gu ñu dox mhm. ne man dama daan wax ne am na temps yoo xam ne ci jàng toog lañ nekkoon <laughs> passé nañ waaw <laughs> raam nañ mais loolu ba ngeen ko commencé ba tey est-ce que gis ngeen ku si mel ni ay genre ay autorité wala quelques personnes yoo xam te ni xaw nañu kawe tuuti comme ni ma ko mënee wax ñëw dugal si seen loxo ngir jàppale leen est-ce que amagum na way loolu nag moo ñu manqué mhm. waaw loolu moom bu ñuy wax moom moo ñu manqué trop trop trop trop trop waaw lépp defee suñuy activité yëpp. ñu ñoo ko moom. Mm-hmm. mais amul benn autorité boo xam ne tey ñëw na daal di jël xam nga fekk ji suñu ci. kan ngeen ci gis koo xamante ne nii tey mën na leen a jàppale ngeen di ko ci woo waaw mun nañ cee woo ku mel ni madame madame euh, Marème Faye Sall. Mm-hmm. di ci woo aussi ministre de la femme. Uh-huh. xam nga wax dëgg yàlla ak tamit tout les bonnes volontés. Mm-hmm. ndax am na ci ñoo xam ne tey. waaw di ci woo aussi suñu maire yi mm-hmm. mair Yoff xam nga ndax tey moom mooy autorité municipale bi il est le premier magistrat donc de notre de notre commune mm-hmm. kon moom tamit moom lañ ciy jiital sax mm-hmm. ndax tey jii bu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu nee Fébia mënuñoo bañ a wax yoof ndax boo xoolee sax Y bi yoof lay tekki kon nag moom lañ ciy njëkk a woo waaw balaa ñooy woo na bu bu ko buñ ci paree nag daal di woo suñu ministre de la femme woo la première dame woo aussi tout les bonnes volontés yi nga xam ne tey jii war nañoo mën a jàppale mhm. ba tey suñuy activité gën a mën a dem ci kanam ndax instant bi suñu activité lan la mooy auto financement bi nga xam ne moom la ñuy def ak tamit mhm. vente bi nga xam dañuy def achat et revente ci biir kii bi ci biir ci biir GIE bi mhm. waaw mais euh, bu ñu amoon aussi ñoo xam ne mën nañ ñu jàppale aussi pour bu fekkee ne am na ay projets yoo xam ne dañ ci jël certains membres daal leen ciy dugal. Mhm. ndax ñu nekk des femmes actives tamit dans la société aussi dinañu. doon nañu amal solo mais est que mais est-ce que depuis ngeen koy def yéen ni ngeen tolloon est que yéen ngi yokk yéen ngi seetlu ay yokkute ak mhm. nit ñi pour ñu rejoindre boobu les FIBIA est-ce que mhm. yéen a ngi leen may accès pour que leen. waaw ñun moom euh, suñuy porte dañ ko ubbil ñëpp. tëjaluñu kenn suñuy bunt. waaw mais nag euh, li ñuy wax bi ñuy démarrer. Euh, nga xam ne cotisation yi commencé gul woon et tout. Mhm. xam nga ñëw bëgg gënoon nañu bëri. Mhm. on était plus de cinquante. Mhm. mais li ñuy wax des fois booy am na loo xam ne boo koy def. ci biir ni ngay doxalee ngay xamee ñi nga xam ne ñoo si dëgg. léegi ñun mën naa laa jox exemple tame la rek bu lay ndax ak tame booy lay li baaxul mooy wàcc. dëgg la li baax des ci kaw. li baax mooy des ci kaw waaw kay <laughs> léegi nag instant bi ci la ñu amee 37 membre yoo xam ne. yoo xam ne yu normal lañ yoo xam ne dañ doon def seen cotisation normale ndax aussi. duñ jël n'importe qui dugal ko ci biir ndax yow bu fekkee ne doo def cotisation bu normal kon mhm. tey boo lebee doo fay mhm. xam nga loolu yëpp ci xooloon nit ñi ñi nga xam ne am nañu pas-pas ñi ci am gëm-gëm ñooñu mhm. loolu nag on l'a acquis léegi tamit instant bi da ngay gis comme ni ñuy defee nii journée 8 mars bi da ngay gis tay jii rek am na ñoo xam ne promettre nañ ne ma ne dañoo bëgg adhérer tamit nan mooy lan mooy modalité d'adhésion yi bu ñu demee ba gis ne dañoo bëgg adhérer ça veut dire gis nañ si benn njëriñ waaw déjà rek ki ñu doon defal décoration bâche bi bokkul mais nee na ma lii daf ko intéressé de trop trop. macha allah léegi nee na bu ñëwee day adhéré. aussi waaw loolu nekk na mais aussi gis nga bu ñu organiser. 8 mm-hmm. mars aussi duñ ko yamale suñu biir. dëgg la dañu tàllal loxo ñëpp koñ bi ñëpp la ñuy woo ñu ñëw bokk ci. Mm-hmm. waaw di leen si encouragé bu baax. Mm-hmm. si taxawaay bi ngeen am. xam da ngay jox sama soxna si micro bi rek moom tamit mu waxtaanal ma tuuti si activités yi ngeen di yëngu ak si yeneen ak yeneen yi ngeen xamante ne ni jot ngeen kaa def si boobule. GIE waaw Astel. Euh, FEBIA moom boo ñu ci laajee dañuy sawar tontu. dañuy sawar tontu. parce que macha allah dafa nekk groupe boo xamante ni yàggul. Mm-hmm. yàggul comme ni ko suñu présidente bi waxee. Mm-hmm. un an et demi rek la existence am tool. Mm-hmm. mais macha allah réaliser nañ ci lu bari. lu bari parce que man boo ma laajee ci affaire finance dama ciy sawar parce que man maa ko yore. macha allah bi ñuy doogaay tàmbali. comme ni mu ko waxee rek ñoo ngi doon commencé di financer cinquante mille. cinquante mille yi jeexee ñu def cent mille. boo versee ba mu mat jox la cent cinquante mille. bi cent cinquante mille jeexee fi mu toll nii ñu ngi ci deux cent mille. dëgg la mais bu ñuy waxtaanee si affaire ay versement. Hmm. xam nga man tamit yooyu parce que jigéen laa tamit def naa si xam dara mais est amul ay problème yoo xam te ne di ngeen ko jàn jànkonteel si biir yooyu la joxe ay ay versement. est mooy mooy li la sànq présidente waxoon rek. Hmm. gis nga bi ñu tëbee ne dañuy natt soixante mille chaque fin du mois cinq mille. Hmm. ci la ñu xam ñi ñi nga xamante ne dañoo fiable. ci lañ mën a xam ñi nga xamante ni bëgg nañ am nañ volonté pour dem. dëgg la gis nga tey fii àdduna la tey boo ne woon kaa ñu dem. Mhm. ñëpp ay jug. Mhm. waaye bu yoon bi guddee rek di nga xam ki sawar a egg. Mhm. ak ki wàññeeku ak ki dëgg la. wax dëgg yàlla groupe Febia macha allah dañoo neex a jiite. macha allah dañoo neex a jiite. ndax astel fii kenn ëpp fi kenn xel. kenn ëpp fi kenn doole. dëgg la kenn ëpp fi kenn alal. dëgg la xam nga lu neex kaañu di ànd. ca ñi ngay àndal tamit ne la kaañu jiite la. Mm-hmm. jiite ñu. Mm-hmm. kaama jiite la neexul de. Mm-hmm. kaama jiite la. di gis ku la topp di nga gis ku ne maa bañ. dëgg la mais kaa kaay jiite ñu moo neex. moo tax problème boobu amuñu ci amuñu ci benn problème. xam nga suñu problème mooy lan. mooy lu sànq suñu présidente wax rek. suñu sañoon. gis président de la république. Mhm. mu re mu recevoir ñu pourquoi pas. bu ñu sañoon tey. Mhm. gis Marème Faye Sall mu recevoir ñu. Mhm. bu ñu sañoon tey gis Seydina Issa Laye mi fi yàlla teg. mu recevoir ñu. ñuy jot ci lépp lu waa Yoff da ñu jot ci. dëgg la parce que tamit bu ñu nekkul ay natif Yoff tamit nous sommes des Yoff waa. parce que fi la ñuy voté. fi la ñu dëkk. fi la ñu am suñu ay kër. dëgg la du dëgg. tey jii suñu sañoon Tahirou Sarr mii dëkk Yoff ñu gis ko. ndax ma ngi defal waa yof lu baax mais est a ngi ciy dox ay jéego. dox ay jéego mais xam nga tamit nit ki bu la xamul. Mhm. moo tax Astel ñu lay sant di la gërëm. Mhm. ñu la bu la xamul tey mhm. ee la lay woowee. dëgg la xam nga li ma la wax. mais tey moo tax sa invitation bi ñu ma lu may rafetlu la. parce que dina tax ñu xam ne am na ay jigéen ñu am ñu brave. dëgg la wax dëgg yàlla suñu 37 personnes yi macha allah amul kenn ku ci xëy di chemin. Mm-hmm. macha allah wallaahi macha allah amut mm-hmm. am nañ ci am nañ ci biir ay professeur mm-hmm. am nañ ci biir ay commerçant am nañ ci biir ay ay. mooy comme ngeen koy waxee sànq rek jigéen mooy lépp. jigéen mooy lépp. fi fi réew mi toll foo dem lépp fi mu toll nii am nañ ci am na nañ am na am nañ secteur yëpp am nañ fa ay nit. tey kon suñu maire bi woowoon tey recevoir ñu. kon du ñàkk ay post yu ñu ko mën a jox suñu biir kii. suñu biir GIE. dëgg la euh, GIE e bi am na lépp macha allah. Mm-hmm. kon ku complet la. Mm-hmm. kon nag Astel mooy li ma lay wax rek yàlla na yàlla defal jàmm defal ñu sutura. Mm-hmm. ba ay nga nga ñëwaat ci yeneen circonstances. ñox ñu nga yeneen projet macha allah man kay yéen laay topp instant bi ma <laughs> leen amatee yeneen ni ndaje man tamit euh, dinaa ci teew parce que comme ni ma ko waxee sànq bi xam naa dama leen tam si loolu tamit bëgg naa ngeen ñëw tuuti si seen i projet yan projet ngeen amagum fi ngeen toll nii waa astel xam nga mooy li ma lay wax rek ñun suñu suñu suñu GIE ñoo ngi leble mhm. am su benn activité la mhm. am nañ calebasse suñu beneen activité la. am nañ suñu jaay ak suñu jënd. commerce intérieur extérieur. boo xamante ne nii yéen a ko bokk. ñoo ko bokk. Mhm. groupe bi moo ko moom. Mhm. suñu xaalis la. mooy li ma la wax rek. ñooy liggéey ñoo moom suñu bénéfice ñooy jëndalante. Mhm. ñooy jaay. am na ay éleveurs. jaay nañ euh, ci ci kii bi ci appel bi. plus de mille ginaar. te ñun ñoo ko moom. dañoo employé. dañoo employé tey suñu sañoon gis ku ñu financé. jox ñu local. Mhm. am ñu ciy xëy. Mhm. di ci gont di ci wàcc. dëgg la. xam nga mhm. loolu lépp tey ki ñu ci mën a dimbali mooy maire bi. comme que moom mooy suñu première kii autorité. de notre commune. mu jàppale ñu ci xam nga. te xam ne ay jigéen ñu bëgg liggéey ñoo ngi nii. ay jigéen ñu yërëm seen i jëkkër ñoo ngi nii. ay jigéen ñu mën ñu mën seen kër ñoo ngi nii. comprendre nga. tey loolu lépp yooyu yëpp suñu ay projet la. waaw ñu projet tamit am suñu local bu ñu moomal suñu bopp. Mhm. chaise Febia quoi pas bëgg nañ ko. dëgg la bëgg nañ ñi nga xamante ni tam dañuy commerce ñu gën leen a financé. Mhm. comme lu mel ni financement DER bi bëgg nañ ci am suñu wàll. parce que mhm. gisuñu si suñu bopp aussi. xëy na nag nit ki tam bu la xamul mënu laa jox. loolu lépp tamit ñoo ngi ci astel. dëgg si loolu tamit xam naa damay jox beneen soxna rek mu ñëw si yooyu le projet ngeen xam ne am ngeen ko ak seeni activité tamit ngeen ko mën a Estelle dañuy nuyuwaat mhm. bu baax euh, li muy laaj nii sawar nañ ci lool lool yëkkatil waaye dafa fekk suñu présidente wax na ko mhm. suñu trésorier nit mhm. wax na ko ñun bi ñuy sos lii mën naa ne ci saal lañ toogoon rek di waxtaan di ko café ne ñun dañoo bëgg bu ñu tabaskee ba pare nañu jël lii ñu def ko benn ngoon rek organiser sabar wala mhm. organiser tama mhm. ci waxtaan boobu ci lañu ñu inspiré wu ne ñun pourquoi pas ñun ñu gëm suñu bopp ñu mhm. taxawal lii mu doon GIE mais xam nga wàññi boo gis tey tàmbali ci benn ci benn comme li madame Diallo wax sànq nee na boo ne bëreet mbooloo yëpp ay jug topp la dëgg waaye booy dem bay bëgg a sori rek da ngay gis ñiy dëpp ñuy continuer léegi nag yow bu ko defee ci ñuy continuer rek nga mën a àndal mhm. yàlla def ci biir liggéey bi bi mu amee ba léegi bi nit bi ñu tàmbalee liggéey ba léegi mhm. ku ci mel ni man yor naa sama ci bopp mhm. maa ngi liggéey restauration moom mi suñu présidente bii professeur la université Bambey moom mii poñisey madame jàll mi toog mhm. entreprise am la yoon mhm. yor magasin am di liggéey mhm. di ñu ci biir e bi tey lépp lu ñu war a xëy dem jëndi ko marché dañuy xëy ñëw jënd ko ci moom parce que lépp lu nit duut ci këram moom lay jaay suñu mag bi toog muy Fatou Diop Laye moom tamit même chose yor entreprise am et loolu yëpp ci waxtaan lañ ko créé ba def ko ñu xam ne jigéen waratul toog jigéen waratul xëy rek toog ci kër nii du xoolanteeg njabootam ñun dañoo war a takk suñu sër dem liggéey indi def ci kër comme ñoo woote parité dëgg la <laughs> ñoo woote parité mm-hmm. mi ngi noonu moo tax na ñun ñii nga xamante ne ñun ñoo ko ŋànk gérer ko mm-hmm. créer suñu yëf mm-hmm. ñun am na ci lu ñuy yëngu waaye bu ñu sañoon mbooloo beneen bi topp suñu ginnaaw am na ci ñoo xam ne tey ñun bu ñu sañoon dañuy dem ñun ba GIE bi yëkkati di leen jox ñoom it ñu taxawal seeni propre affaire comme li mu wax sànq ginaar yi ñoo ko financé suñu bopp. Mhm. et que pourtant ay doomu yoof lañu. Ah, duñu dundul yoof mais ay doomu yoof lañu. Mhm. bu ñu sañoon tey autorité yoof yi ñuy dégg. Mhm. dañ di dégg rek gisuñu leen. dañuy jël seen loxo def ko ci ñun. ndax ëllëg mooy tax. parce que boo xoolee tey suñu 8 mars bii nii ñu ñoo finance suñu bopp. ñu jox suñu bopp lépp lu nga xamante ne ñu ko fi lépp di ko fi naan. et pourtant gis naa seen bâche bi. très bien lépp loo fi gis. ci mhm. suñu poche la génnee. yéen a ko financé suñuy financement ñoo ko liggéey di ko joxaat suñu bopp. ci mhm. ñaq di ci teddaat nii. Mhm. mais soxla nañu nag ëllëg. fii ak déwén tey bu ñu naan année prochaine incha allahu rabbi kenn du bañ a manqué. bëgg nañu tey ñu naan ah doomu yoof bii kat autorité yoof bii kat moo jàppale jigéen ñi tey. ndax bëgg nañ déwén leneen beneen innovation bu bees ñëw ci. wasalaam ñoom lay santaat bu baax merci beaucoup ma di leen jaajëfal bu baax a baax si teewlu bi kontaan naa trop si loolu tamit xam naa dama leen di encouragé bu baax a baax si lii ngeen xamante ne nii yéen a ngi si di leen ñaan di leen ñaanal tamit avancement bu baax a baax ngeen dem ba gën cee gis seen bopp parce que xam naa ne yéen a ngi ciy gis seen bopp comme nee ngeen ni ça fait un an ngeen du ko doxal. di leen ñaanal ngeen gën cee gis seen bopp gis si benn avancement gis si benn avancement ak lépp loo leen ciy xaar ngeen gis ko si si projet yéen xam ne am ngeen ci si loolu xam naa damay jox suñu présidente mu sànni ci ay mots après ñu daal di tëj. Mm, waaw euh, moom moom euh, comme li nga wax rek. Mm-hmm. ñun moom suñu projet instant bi lenn la lañ ko calqué instant bi mooy mm-hmm. am na loo xam ne jigéen ñëpp a koy def te defuñu ko mooy que ne transformation ñun bu ñu amoon ñoo xam ne tey jii ñun dañuy jàppale defal ñu mm-hmm. formation mm-hmm. pour ñenn ci ñi nga xam ne ñu ngi ci biir groupe bi te liggéeyuñu pratiquement seen liggéey xawul demee noonu am na si ñoo xam ne on la on a réussi jox leen financement ñu am lu ñu démarré mais am ñoo xam ne tey ba léegi nii amuñu réussite boobu ci ñoom xam nga ndax il n'est pas donné à n'importe qui nga financé ko mu taxawal. dëgg la waaw il n'est pas donné à tout le mhm. monde. d'ailleurs même lan laa laaj kii sant financement bi ak affaire yooyu. est-ce fois am na ñoo xam ne du ñu du ñu réussir. Mhm. léegi nag ñooñu noonu est-ce que ñoom xëy di wàcc ñu leen di fay par weer du gën ci ñoom. am nga bu boobaa ñu ciy mën di santé seen bopp te lu mel ni transformation bu fekkee ne am nañ opportunité di ko def ñooñu noonu bu ñu xëyee di ci liggéey. Mhm. ñooñu am suñu propre. suñu propre produit yoo xam ne. Mhm. empreinte Fibia moo siy nekk. Mhm. ñoom ñi nga xam ne lépp lu ñu liggéey. ñoom ñooy nekk les bénéficiaires xam nga euh, direct mais indirectement aussi FEDIA da ciy nekk bénéficiaire waaw waaw di yokk aussi que ne journée bi nga xam ne ñu ngi ko taxaw ñu ngi ko organiser tey mhm. lépp loo xam ne def nañ ko ci mhm. c'est les membres ñoom ci seen wàllu bopp ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko liggéey ñu suñ mhm. bénéfice dañ ko sànni ci biti ndax tey am na koo xam ne togg lay def moom la ñu jox moom mooy togg bénéfice bi ci moom lay ñëw bénéfice togg bi kuy jaay ndugg bénéfice su ndugg bi ci yow lay ñëw du dem ci mm-hmm. keneen du dem ci mm-hmm. biti kuy kuy tailleur ci biir bénéfice su ñaw ci yaw lay ñëw mm-hmm. ku nga xam ne ya ngay jaay tusi ci biir bénéfice tusi ci yow lay ñëw mais du ñëw waaw mu nekk lu am solo tamit parce que jàpp naa ne même si biir réew mi noonu lañ ko war a defee suñ ko defee woon noonu kon jàpp naa ne lépp dina dox également waaw ñun daal dërëm bi daal duñ ko jénnee gaal gi. <laughs> waaw kay. waaw ok. ci loolu xam naa dama lay bàyyi nga tëj rek nga tàggatoo ñu daal di tëj. waaw Astel nag ñu lay gërëm ci opportunité bi nga xam ne. Sene Info. Mhm. may nañu ko ci xam nga ñu mën a médiatiser ci li nga xam ne mhm. ñu ngi ko nekk ñu ngi leen di ñaanal yéen aussi seen sit bi yàlla def ko mhm. télé. xam nga. amiin euh, amiin ca kaw ca kanam daal. ci ci lu baax ak euh, Fébia en compagnie de Fébia léegi ñun daal da ñuy topp ñu topp la. amiin <laughs> merci beaucoup yéen laay topp joxal sama soxna si mu tàggatoo. waaw Wastel ñoo leen di sant. di leen mhm. sant di leen gërëm. Mhm. wax dëgg fa neex yàlla. ni ñu ko tàmbalee nii ren ci bisimilahi rahmaani rahim mhm. yal nañ ko yegg nag alhamdulilahi rabil alamin mhm. parce que nag ku ne xam ne ne site ku nekk da koy soxla ci 8 mars bi ngeen ñëw yaatalal ñu ko jox ñu ko nii ñu ngi leen di ñaanal yàlla nekk télé mhm. ci barke Serigne Touba yàlla na ko yàlla leen ko yàlla defal fii bi yaay it toog nag bay nga xamante ne dañuy séddale ay biyee biyee màkka di ko jox néew ju doole jeeg ñi ko soxla ñu ñi ko sos tamit mhm. ak mbooleemu ko ci bokk rek yàlla na suñu boroom yokk ci barke Mouhamed santaat nañ leen di sant suñu mhm. njiit yu baax yi di sant suñu magu euh, GIE bi ñoom ñëpp commencement ba fin ku lu ko bokk ci GIE FEBIA mhm. ñun ñoo ngi lay sant ndax mhm. jiite dafa metti te ay xale la ñu jiite ay mag ñu nangul ñu lool mhm. donc ñoo ngi leen di santaat ñoom ñëpp tamit wasalaam am na solo trop macha allah tamit. waa Astel mooy comme li sama président ak sama secretaire général wax rek. ñun daal ñu ngi sant ñëpp. di tàllal ñëpp suñu loxo. di gërëm ñëpp. di sant suñu borom kër yi di sant suñu dëkkandoo yi. ñu permettre ñu def lii si seen buntu kër yi. Mhm. xam nga ci sant sargal jigéen ñi àdduna bi yëpp. Mhm. di di di leen wax ni rek nii la. Mhm. jàpp leen mu dëgër. incha allahu rabbi lépp dina baax. dina baax benn jigéen toogatul. benn jigéen toogatul. lépp dina baax. incha allah incha allahu rabbi yàlla na ñëpp réussir seen mission. Mm-hmm. yàlla na jigéen ñëpp réussir seen mission. amiin amiin ci daraja yonent bi. asal yow tamit ñoo ngi lay sant di la gërëm. Mm-hmm. di sant seen info. Mm-hmm. macha allah ay nit ñu baax ngeen. ndax tamit ndax tamit yéen a ngi ñëw fekk ñu suñu activité wax dëgg yàlla nangu ñëw recevoir. xam nga mooy li ma doon wax sànq rek ñu ngi woo ñëpp. ñu ngi woo ñëpp nag mënuñoo mënu mënut a weesu ñu ngi woo ñëpp. ñoo ngi koy tàmbalee ci président de la république di woo monsieur le maire. di woo autorité waa yoofu yëpp. Mhm. nañu ñëw jàppale ñu waaye soxla nañ ko. Mhm. te tamit macha allah te tamit ay jigéen yu am jom daal laa gis moo tax yàlla na defal jàmm. merci Astel tàggatoo rek ñu daal di tëj. waaw Astel ñu ngi leen di santaat bu baax di leen gërëm. Mhm. Euh, ginnaaw bi ñu commencé si bisimilahi rahmaani rahim àggale si alhamdulilah rabi alamin ñu ngi ñaan yàlla suñu kàddu yi yàlla bu mu doon suñu jotaay bu mujj. bu déwén jotetee incha allah yàlla na fekk ñu koy def centre aéré. wala ñu koy def grand théâtre wala fépp. bu boobaa euh, xam ah, na day fekk. waa première dame recevoir ñu. ah ñu gën see gis suñu bopp tam li ko secret suñu euh, kii présidente bu ñaaw bi madame Dramé wax. ak sama rakk yi. Mm-hmm. tamit muy loolu ñun tëjuñu suñu bunt ñu ngi woo ñëpp macha allah. Mm-hmm. képp koo xamante ne bëgg nga ñëw si euh, euh, febia bi rek suñu GIE bi ñu ngi lay oo di la invité ndax macha allah dañoo bëgg àgg daal si kaw si kanam yàlla jàppale ñu musal ñu seytaane lafal ñu cat macha allah ñuy gërëm ñëpp daal di sant ñëpp di leen gërëm asel ak euh, site bi yëpp ay dëkkandoo yu baax ngeen macha allah ñu ngi leen di ñaanal yàlla na ngeen yokk bu baax a baax a baax barke Baye Laay merci beaucoup kontaan nañ di wax ñëpp bon fête bonne fête à vous de même yéen tamit bonne fête bonne fête sama jigéen ñu yànn yànn yi di leen jaajëfal bu baax a baax ci teewlu bi ci loolu tamit 8 mars bi li ngeen taxawal nekk na tamit lu am solo parce que fi réew mi toll tamit benn jigéen toogatul comme ni ngeen ko waxee waxtaan bi am na solo torop xam naa nag comme euh, temps bi moo ñu tënk nii xam naa dañ leen di bàyyi di leen souhaiter waat bonne fête internet yu ñuy seetaan. Euh, actuellement à travers seen Info International di leen jaajëfal bu baax a baax di leen jox dig daje ëllëg incha allah si yeneen i émission ak yeneen i jotaay jërë ngeen jëf. salaamaaleykum mën a wax tey si 8 mars bi si taxawaayu jigéen si biir këram vu que loolu moo nekk seen thème bi ngeen choisir tey. waaw maa ngi leen di nuyu yéen waa waa Sene Info maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di kontaan seen teewaay ci bés bi. xam nga 8 mars bu ñu ko waxee rek jigéen a tax jagleel ko jigéen muy euh, bés bu am solo ñu di ko sabure di kontaan di ko bégee waaye ñun dañoo nekk GIE euh, FEBIA xam nga dafa ëmb féminin dañuy liggéey di lebalati suñu biir maanaam di góor góorgóorlu di jàppalante ak kenn ku ci nekk ñuy jaay suñu ay produit ci biir GIE bi ndax jigéen boobu boo déggee thème bi mooy jàppale jigéen ci biir kër ak taxawaayam ci biir kër kon radikaay maa war na la taxawale njaboot bi ndax ñun ñoo nekk chef ci lépp ci biir euh, njaboot geeg kër yi kon donc ñun euh, boo ma laajee ci euh, jigéen taxawaayam ci biir kër moo ëmb njaboot bi ndax ñun ñoo yor njaboot bi ñooy daw ñooy xam ñooy liggéey di indi jàppale borom kër yi si biir kër gi donc ñun li ñuy jàppoo mooy xooloon dañu ne suñuy ay natt ñun nag suñu natt yi balaa taa nañ ko def ñu jàppalante suñu biir di lebalante suñu biir di jaay suñuy suñuy bagage ci biir ñoom moo tax ñu woote tey suñu 8 mars fête comme tout monde donc ma la koy souhaité yow en tant que jigéen ma chérie vraiment macha allah kon loolu la woon suñu président di Rama Thiombane di nit ku baax initiative bi moom la revenir moom moo ñu ko taxawee ak le secrétaire général euh, madame Diop ak Koña ñu taxawuñ nag jiite ñun ñëpp ñu ànd ak ñoom di liggéey kon muy liggéey bu am solo fii APEX la tudd macha allah kon ñu ngi lay gërëm di la sant waaw waaw. di la souhaiter bonne ah, bi daal ñu ngi naan. ay déwén déwén. di wax ne yàlla bu mu nekk suñu mujjante ni 8 bi mooy ñaari yoon ñu koy def. dañoo takku ànd bokk ndey ak baay. di liggéey ñëpp dañuy daan seen doole yi xaalis bi nga xam ne moom lañ am suñu kees ci la ñuy jël du ñu lebal ñuy liggéey di verser di fay. am na jaay ginaar omo saabu ravitaillement lépp mi si biir te ñun jigéen ñi suñu doole la du doole kenn suñu doole la képp ku ne dimbali si daf ñuy fekk suñu GIE mu dimbali si muy groupe FEBA ñu nekk jigéen ñu am jom jigéen ñu am jom dañuy teel a xëy dañuy guddee wàcc te teewul danoo yor suñu njaboot di suñu biir kër waaye dañoo bëgg booloo bëgg a moomul suñu bopp ba bu yee màkk génn si bëgg ba bu jàppale ci suñu njaboot yi bëgg kenn koo xam ne rek amul suñu doole dimbale ko ñi ngi ñaan nag képp koo xam ne rek am nga doole mën nga ñëw dimbale nga fekk suñu ndax ay jigéen lañu ah woo ñu jàpp si seen association dañuy woo ñu baax ñi rek bàyyiwuñ kenn surtout Marème Faye mi nga xam ne jigéen la da nga xam ne buntu kër boo dem fekk ko fa ñu bëgg Marème fay sees si ñu defal ñu lu baax nga xam ne day def lu baax jigéen la comme ñun nañu ñëw dimbale si jigéen bi ñuy woo Marème Faye lan njëkk woo nañu ñëw jàpp ak ministère de la femme nañu ñëw jàppale ñu jigéen lañ nekk fii ci APEX namuñu dara nak ndax suñu doole nañ bëgg nag ñëpp ñëw dimbale ñu jërëjëf.